askanu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën kuréetu makkuréel ala droit. booy ndogu. eh. Jabar Jabar. pardon waay. s'il vous plaît. alors na ngeen def. ça va baal ma baal ma baal ma s'il vous nii wàll nii bay ma. mais alors na ngeen def. naka ak yoon yi. li nga teg nii neex na de. def maa yokk cosaan. billahi sama mbapat mi ma doon bare fim la. quatre heures du matin may raafal mbor yi lu toll quatre-vingt-douze mbor ma daan leen ci benn guddi gagné ñaari saako aliment ak ñetti saako téye waaw hi hop la jagal loolu nga ma jagal ya ay waa ji la yéen ay mbor ya waay waay yow yaay mbor waay yaay bandi man nag mbor mbor mu ñàkkoon jom laa duur rek waaye déclenché nañ ma mboot ba tey fii daal <laughs> alors alors nu mu demee. yaa ngi am jàmm ça va. nice cool alhamdulilah sinon. ah ngi lekk sa xaalis. dara maa ngi taxawaaru rek di wër rek di jàppal bàyyi quoi. Eh, eh, fii laa gis nga boo yi. waaw dañoo teg loo xam ne wax dëgg yàlla dafa bokk ci ñun. maa ngi leen di di yëngal seen deret la. gis nga dafa bokk ci ñun. <laughs> mais naka job bi yaa ngi ci quoi. hiti kontaan ci yow nag. yaa ngi koy gérer. di la ñaanal nag nga yokk nu jumaay Tuuba. amiin wax dëgg yàlla bu ñëpp meloon ni yow bala. jeunes yi fay liggéey. Mm. bilahi parce que jàppale nga ma. Mm. jàppale nga ma ci kaw japale ma ci suuf. fii ma toog nii tey maa ngi teral ku ne mm. de la sa jëmu ji sa wërsëg la am nga yow ndaw nga waaw bëgg teral sa bopp teral sa waa teral sa njaboot donc lu mel nii da nga koy mérité ah, amul solo yow ñoo far joobal rek non non coow la mais mais voilà s'il vous plaît attends ah maa ngi jégalu de waaw ah, wax dëgg la ah, daa am ndigal yi ma fi jox de ndigal yi mooy yi ngay yi ngay gérer man abaa nee na ma képp ku munti ñëw waaw bu fekkee ñaanul woon audience moom bu mu dugg de lu tax lu xew. da ngaa ñaanoon audience. audience pour lan. a ah, wax ah, dëgg yàlla dañ maa teg fii ne ma bu kenn dugg bu kenn génn. waaw te lépp ci ndigal la. defal ndànk yow xamee woom. xamee naa la yow la bala. waaw léegi. ah loo bëgg. léegi règlement ak audience kay dañ koy wax ñeneen. gérer loolu non non bala déet s'il vous plaît. attends. séeréer da nga maa téye. non dama laa téye c'est normal ma téye la. parce que ci nga may téye doo dugg. yow man maa la teg fii nga nekk. boo ma fi tegee nag.

waaw mais dama ñëw sa buntu kër booy séeréer téye ma ci buntu bi di ma wax ay règlement xaw ma lan. maa ko téye maa ne du dugg. waaw man seet ma géré ko ak kon de nga jaar nii bu dee ñoo koy géré moom nga jaar nii wala nga jaar nii ndax xam naa fii doo fi dugg de. booy séeréer est-ce que xam damay dugg ci kër gi par force ndax ma maa la teg fii nga nekk. boo tegee tànk bi mooy déclenché naa la ndey mbo. bu fi dugg bu fi dugg sama tànk yi da am tooke de bu ma la mbootee boo daanoo sa mooco bi du wér ba abadan de ñii ma mbootoon ñëpp xaaj bi dañoo gondale ñii di waaf ñii di pivoté dama la yàq de jaar ma nii laa la ni ma la fi tegee noonu laa la fi jëlee. gàccele ma fi. doo jàmbaar sa foofu dajaloo bi ku la xool xam ne yàgg ngaa dugg ci tabaxu almadi yi di ko yàq yow nga yàq yow. may bëgg chaque mois ñu toog organiser waat defar man vraiment neexu ba neexu mais man maa baax man lu rafet rek laa bëgg lu rafet rek cocotte. kokoon woo leen ñu ñëw ñu réunion waxtaan ko ku nekk wax sa morom li la métti ci moom waxante échange tuuti kër gi nekkat ci jàmm ñépp am jàmm kokoon kaay kaay ami collègue métti maa ngi damay woo rek ñu waxtaan waxtaan rek man kooku dama bëgg jàmm bëgg lu rafet toogal ma woo ami collègue waaw lu mel nekk salle d'accouchement ni ami Kole. naa wax yi mu ndax kaay leen rek. kaay leen metti ko nag man nii laa bëgg man ambiance kaf ree ñëpp nit ci jàmm laa bëgg. kaay toogal rek a ah, non waxuma ambiance yooyu de. waxtaan waxtaanu famille waxtaan boo ko mayee ñu def ko bokkoon dara ay sabar bu amee ak ay tànn bi ci wetu kuy tëgg lay toog di def nag yow laa doon yow laa ngi maa ngi maa ngi ci kër maa ngi dégg laa doon wax léegi danga euh, léegi euh, Baye maa woote woon Baye yow laa doon waaje woo ni balaa ngay foog ni mm, nar mu noonu dama doon woo oh, damay toog ba ci yàgg am yoo xam ni bu ñu wéetee ñaar ñu nekk bu ñu wéetee dinañ am kenn ku kenn koo xam ne ci moom la ñuy nekk du dañ koy jëw wala yàq ko mais dañuy waxtaan ci moom euh, bu defoon nii wala su meloon nii loolu laa bëgg tey ñu waxtaanee ko ñun ñëpp. ku ci nekk ci ñun mës ngaa wéet ak kenn wax ci keneen ki. jëw kenn non pas jëw mën nañ ko sax bañ a woowee jëw mais euh, wax ci moom daal. waaw kon nii moom nga ñu woowee nii. pour waxtaan rek. waxtaan rek waxtaan. waaw wàcce ko ba ci suuf nu waxtaan rek. réunion famille daal waaw famille bi gën a tax waaw lépp gën a ah. Mhm. parce que yow mii yow mi kokot am na yooyu def baay mii am na yu muy def. Ami mii am na yu muy def. ñu commencé ci amicole Collé am na ku ma mës a toogal ñu wéet man ak moom mu am lu ma wax ne ma xam naa ne sax noonu mu mel noonu moo tax euh, mu naqare sëy wala yu mel noonu. Hmm. sa naqare deret gi Ami hmm. sa tàng xol gi Ami Collé munoo munoo digérer dara. abaa Ah. non non non non non non non waxuma tur. waxuma wax tur kenn non du ma wax tur kenn. dama ñëw tey pour euh, pour ñu waxtaan Ami Collé il faut nga wàññi sa tàng gi nga tàng mer gi nga gaaw a mer nga wàññi ko bu dee am na loo xam ni dañ la ko fi def moo tax ngay gaaw a mer ñu lay déglu. kenn defu ko dara dara wóoru la ci. egg borom dëj baa ngi nii te na koo jooy. moom lañ laaj waaw waaw man lañ laaj. Mm-hmm. Baye. Mm-hmm. Aba man ni ma mel nii. Mm-hmm. yow xam nga ne dara waralu ko lu dul dafa am lu may bañ. dëgg la bugguma naafeeq. baaxul bugguma jëw. baaxul bugguma fen. baaxul ah, bugguma fen moom goro moo la moom. goro moom. bàyyi kii mu wax waaye kenn waxul kii waxal waxal ami collé. waxal sama petit moo nga taawee ko def ko goro. garaawul garaawul. ñun fen bu amee duñ ko tuddee fen. bu fi mère yow tamit mère lan lay wax de. mère d'accord. ñii may sëyal te ñoom xëy na peut-être sama naqare ren bi arrangé wu leen dañ dul ay nitu dëgg rek waaye boo nekkee nitu dëgg ànd ak nitu dëgg dëgg rek ngay ànd ak moom. léegi ñun en tant que famille ñun après nañ def suñu kéem kattan. ba may ma lii ma lay ñaan. acca uh, yow nag laay waxal. ma mm-hmm. kenn. Mm-hmm. mu bàyyi tontu. mu bàyyi tontu ah tontu waaw tontu. dañ ko ci def ah. ko ci bind la ko question la waaw. bu kenn non non non damaa bëgg lu baax rek maa bëgg lu bañ a euh, di leen woo ba ngeen ñëw may am lu ma fàtteeg yooyu yow euh, li ma lay wax moom xam naa lu tuuti lay nekk te du bari man ak Baye mi euh, mës nañoo toog Baye ne ma waaw ma ci sa waxi sew yooyu de ah. kenn ma ci sa waxi sew yooyu de kañ laa la woon ni la ko kañ laa la la ko vraiment man maa lay wone la kokot waaw maa ngi jégalu lu ah, booy wax di gën a sa wax ok ok donc kokot ah. yow kokot yow li la ñëpp di reproché mooy sa dox yu bari nga nekkee. yor samay soxla dem di ko doxi te yow yu ci bëri say parcours laa lay mais man huit heures laa la yónni da ngay toog ba heure ndog jot duñ la gis. mais embouteillage bi dëkk bi. dafa vraiment. dëkk ah <laughs> te embouteillage ngay ne fii ah, ah bi nga naan ah. dëkk dafa xat. question bi cocotte moo ko moom wala bàyyi. cocotte laa laajte. man bu fekkee sama yenn dugg-dugg génn yi voyage yi moom arrêté naa ko ba koor gi jeex. mais yow bu ma amee lu may dem doxi ak yi may yóbbu damay dem. damay toogal rek toogal rek ba yëpp calme dama bëgg euh, mu mel ni ñun ñëpp ñu mel ni ñu meloon. waaw yëpp nekk fi mu nekkoon ko loolu méttiwul toog naa yow amoo problème. vraiment yow amoo benn problème yow amoo benn souci. lu tax mënuñu mënu laa wax tëb la mooy comme dañoo taaj say morom di leen yedd moo tax faaw ñu laaxaale la ci. kon kii amul mais non ñàkk sikki mi. noo ma tuddee ñàkk sikki. lii dégg nga wax ci kaw. ah di haute voix. ñàkk sikki. comme nag xam nga eh, comme ay yàlla. Euh, comme yaay kilifa gi bu ñuy waxtaanee ak ñëpp ci yow la ñu daanelee. déedéet bala ngaa daaneel ci man bind nga sutur. non man zéro foot ah zen. zéro foot je zère waaw. bindu turam de waaye. waaw bindal sa bopp moo. lan laay bindal ma wax la sa foot. liggéey jaamu yàlla lu ma yor bokk ko rek abay ñu lay parti bi bi ñu lay parti man taxawaalu fenn lu ma am bokk naa ko yéen di abaa kay abaa waaw bàyyil bindal bàyyil bindal bàyyil bàyyil maye yi yi ngay bindal bàyyil ba ma yegg foofu bindal bàyyil loo yor maye ko oh, déedéet wax ma la loo yor maye ko de bàyyil xale jigéen bi eh. merci beaucoup dëgg la waaye jëlal ba yow eh. ki dee moo njaay dafa investir xale mu dem Dubaay maa ci am preuve leer dëgg la ok ok ok man kañ naa nangu baay. xale yu jigéen ñi ok ok. am sikk ba pare lijjanti sikk. nangu naa baay nangu naa ñëpp waxtaan ak ñoom. waaw góor la mu bëggul góor lu muy te loolu moo ko def mukk ci àdduna léegi baay ci yow la ñuy ñëw. yow la ñuy ngay sunu kilifa nag ñun ñëpp. Mhm. yilif ñu mat nga koog man mën na koo mat ak ñàkk na koog yooyu ay wax yu sew la man du ma ci dugg. mat na ko kanam ak ginnaaw. yaay sunu kilifa mhm. te baay sa gémmiñ xasoon na sa doomu ndey la. waaw xoolal ay gémmiñ ko xasaw ak yooyu yëpp amu fi. waxal direct au bi parce que comme ñëpp da ngaa waxoon ñoom mais faa nga taal ko rëyee ko mel ne waa def crime. comme tubaab moo ne le linge sale se lave en famille. aba ay tubaab ak yooyu da nga naan ma bàyyi naa nga ma jël ba ma wax la ay tubaab ak ay. sale ak may ko mu daaneel. déedéet yéen jox waxu ndax waxu leen tubaab. yow da laa wax soose. kii da wax tukulóor ana olof waa koñ beeg waa kër geeg ñëpp nee nañ. ku baax nga ku bëgg ambiance nga bëgg nga kaf mais changer sa yére yi loolu la ñëpp di wax. Mm-hmm. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf fa yàlla suñu borom. lan tëggaale suñu soxla yi. aywaay alhamdulilah xam naa ko de da ngeen doon laam-laamee ak yëpp wax naa ko. alhamdulilah xanaa xamoo soo yore xasaw moo raw kirim. wax naa ko de lii ñuy teg ñëpp prévoir na ko bu yàgg dem naa ci Masaalikul Jinaan Couture mu ñëwal ma dara ju toog. ma ñëw ma ñëw man munoo ma gàcceel seeni biir yi noonu da nga leen di tiñal. déedéet kay kay. rek <laughs> yàlla ki dafa am problème. dafa waaj boppam oh, na. lii du zone de la. laay lay la laa wala lii la élapé. Eh, ak picc. sa bay li ko ko ñëw. Abdou Khadre. Thiès a nekk Thiès. xaalis garab la. moo jàppale station Total bi sooy nekku ci. Abdou Khadre. waaye kii mën na ko omb de. ah man mënoon na ko loolu zéro la zéro kuy omb zéro. ah zéro la te xanaa lii yow kooku nga koy indi. su yow nekku ci. baax <laughs> na bindoo. lan la la mu ne kii. baat baat kaara baat jigéen baat jigéen lii baat jigéen man maa mel nii. waaye zéro sa baat bi mel. abaar zéro bi. yow gis nga sa sa sa kii xolo kii liñ ko baras xolo kii liñ baras. zéro bi mënoon na ko omb de. zéro la kenn ko omb mosoo gis kuy omb zéro yow nit nga. man la ñuy ñëwal di ñëwul luñ ku baax di. Ah, rafet na man damay nit bañ may ëpp. yaa ngi may <laughs> am nit yu extraordinaire yooyu. ok ëmb ma ko. kon Baye mën nañoo xaar ni tu pour nga changer. pour changer le temps mu changer kon le changement de Baye. ma catu. Ah, kon ñu xaar le changement de Baye. nañ ma xaar ma changer. waaye bii moom bii nag du ma ko gaaw a subit de moom laay continuer ba muy sama lay. mais garaaw léeg-léeg ak ma bàyyi ci bii. wala laa doon doyee loolu euh, ah, yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor.